liggéey bi liggéey ko ba mu pare euh, liggéey bi nag dafa am ku ci dal moo tombeek lii léeg-léeg sax dama naan am ne est-ce que président Macky Sall déyuñu ko nii équipe nationale day jël coupe d'Afrique parce que daf leen ne dem leen jëli ko waxuma football final dem leen ngeen jëli coupe bi indi ko ma ne mais xanaa dañ ko waxoon nii Euh, équipe nationale moom bu waree feete bu waree inauguré stade bi daf ci war a teg public. waaw yàlla dogal loolu am. et ñu naan ko chapeau. vraiment euh, ci lu mel parce que lu mel nii mi ngi doog am Sénégal. parlons très bien nit bu defee lu rëy da nga koy wax lu rëy. ne ko félicitation. ne ko merci parce que Sénégal euh, wax fa dëgg yàlla. Afrique sax laay wax pour nga gis état bu mel nii du bari. Europe nga koy gis ah. Mhm. defe naa ne ñun nag Allemagne ñoo ko. ñoo ko niróo dëgg la mais ñu fas yéene ko inaugurer. Mhm. Sénégalais yëpp ñëw. Mhm. ñëpp toog gis bijou bi seen yëf la suñu yëf la. tu vois. Euh, donc daal damay wax naan. Égypte. Mhm. moom bu ñëwee fii. Mhm. ñu dajeeg moom rek. ñu defaat beneen final dàbbali mën naa ne. voilà euh, mu mel ni euh, bi ngeen jëlee coupe bi comme ni nga ko waxee sànq yóbbu ngeen dem ngeen UCAD euh, bi ngeen étudiants yi ak sénégalais yi ànd ak ñoom ci fête bi mel ni comme suba sénégalais war nañu mën a xaar beneen fête beneen final. mais beneen beneen fête la bu benn ba ne ay jàmbaar ouvrier yi ay jàmbaar ay liggéeykat lañu wax fa dëgg yàlla ñun boo gisee suma teewaay fii dafa am plus. bu du woon plus boobu sax danaa fi teew mais dafa am plus parce que Youssou Ndour la dénk lépp loo xam ni dafa jëm ci culture pour ñëw fii. Mm-hmm. Euh, mu ànd teg ci loxo Massamba Gueye. Mm-hmm. docteur. Mm-hmm. ak staff bi yëpp. ne kenn la ñuy woo muy Mbaye Dieye Faye pour mu teg sans percus ñu wàññi. parce que dama bañ stade bi màbb parce que le stade va percuter de <laughs> ah. lii muy sabar yi mhm. ànd ak cinquante percussionnistes mhm. y aura des danseurs et danseuses euh, yoo xam ni waa Linguère lan mhm. waa Assam euh, lyrique instrumental sera ñu ngi fi y aura aussi les majorettes et ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dama la tëggal sa tëgg mais nag dañu bàkk place bi nga xamné ne rek la won ak souf ba li téggu fi dañ ko bak bàkkal lëg daaw mhm. bu soobee yàlla di ngeen ko dégg dañ ko jiin mhm. def ci ndaw raabin def ci degañ mo wër kër ngeewal ya fu ne mhm. ma la ñamal jël fa ñaar ñett ñeent muy séeréer yeeg olof yeeg jola yeeg yépp parce que bu ñu tegee sa loxo lu melni né la pétition bi tegul lu do sa loxo da ngay wër senegal fu ne nga dugg fu mënoo jël ñëpp nag. Mhm. waaye li naan famille boo ci jël boo ci te defalee kenn. Mhm. mel na ne famille bi yëpp mhm. dafa def donc di wax de percussionniste yi nga xam ni euh, euh, jotuñu leen contacter yeneen a ngi ñëw. ñëpp mënuñoo dajaloo fii. ñëpp mënuñoo daje waaye. waaw démb dañoo forti bay di stade bi président Macky Sall dafa fas yéene suba tuddee. foofu laa bëggoon ñëw. mais loolu ñepp ñoko wara rafet bu kenn xajamal boobu xalaat initiative bob parce que léeg-léeg nit def lu reuy mu am ñu nan li moo mu def ko wala lii non non non non Ablaye Wade mérité na ñu tuddee ko le président Ablaye Wade laay wax pour magal ko encore mérité na ñu tuddee ko lu melni mais ñun nak xam nga lu ñuy xawa yak suñu réew lu reuy bu ko nit defee au lieu nga ni rafet na wala jaajëf waye da nga naan est-ce que lii taxul mu def ko non li ñu tuddee le président Abdou Diouf mi ngi ni si kat donc xalat bi rafet na c'est beau li ma waxon ci euh, Bercy naan non c'est vraiment beau. Mhm. c'est plus que beau. c'est plus que beau kon sénégalais yi ñu la nga nga lancé leen après ñëpp su suba fekk. ñëpp ñew bu kenn toog naan woo naan maak woowuñu maak lii yëfu Sénégal waaw.

waykat yi ñi nga xamni ñoo nek ci musique bi muy xalé yeeg ñepp kenn ku ci ne Ismaïla Lo mhm. mhm. mi ngi fi Baaba fi donc kenn ku ci nek di nga joxe li nga am pour bégalé ko waaw vraiment nation bi dama si contane lool ndax euh, li am solo mom moy nit ñi am lu suturlo li am solo mom moy nit ñi nek ci jamm ni am solo mooy place bu mel nii tamit ku fi ñëw wala yeneen place yi nga sentir que ne ñu ngi lay toppatoo loolu moo tax ci xelu président de la république bi muy créer ay emploi dugg di créer emploi mu gis niche bu mel nii ne stade yi war na am ay stagiaires mm-hmm. qui n'ont rien à ak policiers yi wala gendarmes yi mm-hmm. waaye ñii dañu war di jóg di accompagner publique bi di leen dëfal ku ñu gis nag yaa ngi nag sax bëgg sa yaram bëgg tàng ñu dalloo la gunge la

parce que dañ yàlla daf ñoo defal bi nga xam ne président day jël décision bi ñun ñu ngi toog ñu rafetlu ko lool encouragé ko lool topp ko aussi ci ginnaaw ministre Matar Ba di xool lépp étape yëpp ba tey mu sotti nii xam nga nag bu dara demee nga fekkee bu muy juddu nga topp ko ba mu juddu ba ñëw nii da ngay ànd ak mbégte bon bima ñëwé xamna né xamnañu ne que sama loxo mi ngi ci biir ñu tatchu ma nonu kontaan naa ci trop waye tatchu bima gëna bëgg moy ñu préserver fi nga xam moy stade bi préserver population yi continuer def seen liggéey ba nga xam stade yi ñuy wax tay 250 ñu dem ba doon ay milliers. loolu donc monsieur le ministre dafa mel ni fête bi kon yang koy yang koy waajal. wa ñing koy waajal bu baax a baax a baax xam nga nag euh, euh, lii dafa reuy hein mhm. ah, donc il faut que ñu def ci lo xam ne que fay sax te loolu mooy sunu liggéey ñu ngi ci ànd ak équipe bi yëpp inshallah bu subaa di ngeen gis li nga xam ne que moom la ñu prévoir te mu am solo trop pour Sénégal. Ils avaient déposé des candidatures via une plateforme ils ont été sélectionnés euh, comme euh, tous les Sénégalais dans, dans les autres secteurs euh, qui ont eu à déposer leur candidature et après le recrutement ils ont reçu deux sessions de formation au niveau du Sénat de Thiès. Mmh. Une première session deuxième session de formation pratique au mois de février. Mm. Donc ils ont, ils ont été capacités euh, mm. sur le plan théorique, sur le plan pratique, pour faire le travail euh, qu'on attendait. Oui, et ils sont combien Ils sont au, nombre de 250, une première. Nous espérons que d'autres corps vont s'en suivre parce que vous savez que ce stade de 50 000 places aura besoin de 650 stagiaires pour mm. couvrir pleinement le, stade. Donc on en est à 250 pour le moment. On va faire avec, euh, avec ce groupe-là on espère que d'autres corps de stagiaires vont suivre pour nous permettre d'avoir la pleine capacité de ce stade et des autres stades dans l'intérieur du pays. Et donc les, les stagiaires euh, travaillent juste pour le stade du Non, non, non, du tout. Les stagiaires ont été recrutés partout dans les régions. Après l'inauguration de ce stade, ils, vont retourner dans leurs régions respectives parce que l'idée du projet, c'est qu'ils soient, qu'ils servent à la base dans leur département et dans leurs régions respectives. Donc tous les stagiaires euh, ont été recrutés en fonction de leur, de leur, région. Donc, euh, après cette inauguration, ils vont retourner dans leur région. Ils seront mis à la disposition des chefs de services régionaux qui seront chargés de les déployer au niveau local. Maintenant, à chaque fois qu'on aura besoin de pour un événement d'envergure nationale, comme le match du Sénégal au mois de mars, on les mobilisera euh, au niveau du stade du Sénégal. Mais ils sont destinés à tous les stades du Sénégal. Oui, d'accord. Maintenant, on est à heures de l'inauguration de du Sénégal du content du président Macky Sall les au début au milieu et à la fin c'est le président de la République Macky Sall parce que est vraiment wax dëgg yàlla kenn que vous imaginer